ba tey ci seen scandale du jour toujours ci plateau boobu ñu dem seetaan vidéo bi ñëwaat. ñu noonu kooku Dame Mbodj la tudd di jàngalekat boo xam ne ñu bari ràññee nañ ko bi fi maître El Hadj Diouf nekkee sonaloon réew mi ci dossier Adji Sarr bi Dame mi bokk na ci ñi freiné woon maître Assane noo déggee daam daf mel ni nee na bu ñu arrêté wul daal président ba fi woon mënees nañoo bàyyi ñëpp ñu dem. waaw Dame de xanaa di ko encouragé rek xam naa ni Sénégal gépp xam nañ ne daam moom sama xarit la. Mhm. ndax man moom bokk na si ñi nga xamante ni saa bala maa tëdd ñaar bu defee sorti dama koy seetaan dama koy diglu ndax damay sàkku xam-xam. ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko feex waaye nag xam naa man ma fa toogoon en tant que journaliste yi waxtaan wi daal dana gën a am solo. ci naka maa ngi siyaar nag ñu ko dalaloon baax ay journaliste yi were lañ mais xam naa dafa am lu ñu desal seen digganteem ak daam. Mhm. président Macky Sall il faut que ñu jëli ko atté ko ci lim fi def hmm. ak ñimu andalon légui question bi nga war na door yow journaliste da nga war ni ko waa bu boba Ousmane Sonko mi nga bëgg mu defal ak joma ñom nan leen leen di def ci naka hmm? ci naka nan lañu def ci naka ndax ñom dañ leen di jëlat delo leen kaso ñom Ousmane Sonko ak jomaay andi président Macky Sall ñom def leen kaso ñu atté li fi amone lepp wala ndax li bàyyi président Macky Sall ñoom ñu dem si jàmm moo bàyyi Ousmane Sonko ñoom ñu mën a génn ba jël réew mi dañ ko wote ensemble muñ dañoo grâce yépp fi amoon waaw ñu jële leen fi lépp loo xamante ni amoon na fi si ay ñaaw teef nañ ko fi jële ñu tëj si kaso yi ñu tijji leen est ce que waxul ci côté alal ji non non tudd daam def naa ci ñaaw ñaawteefu alal ji lay wax non non ñaaw ñaawteefu alal ji bu doon loola day war na day wax ni nañu wax président Macky Sall mu indiwaat alal ji si kaw mu doon preuve ndax dafa am ñoo xam ne ñoom la ñu fal yoon nekk ci réew mi am na yoon di doxee ñoom ñoo war a mën a saytu ba xam ne président Macky Sall que jël na lii te lii mu jël du yoon yoon daal di koy taxaw wax mais ay njort rek ñun duñ si sukkandiku. te jii bu ñu ne woon président Macky Sall ñibbi si ñëw na Sénégal jënd na fi nangami hectares it def na fi lu ne milliardaire laat ñun du tax ñu man ni da daa jël. mais yoon moomu taxaw niñu président Macky Sall de luubal na fi lii luubal na fi lii luubal na fi nii ñun ñu d'accord ndax ñun ñoo fi teg yoon mais comme que yoon waxu ko tey président Macky Sall li ko génn si réew mi si jàmm ñim àndaloon déggoo kenn ñu ne arrêté nañ ko ndax ñaawte bu mu fi def ndax dañ ko woote loi ñu génn ñoom président Ousmane Sonko si kasso bi ak ñoom jamaa ñu campagne jër réew mi si yër bu gàtt kon journaliste yi dañ ko xam luñ ko laaju journaliste yi dañ ko war ne ko waaw kon bu boobaa responsable tu ñi nga xam ne jotoon nañ leen bàyyi si kasso bi ndax dañ leen delluwaat si kasso bi delluwaat lépp attewaan mbir mi si yoon xor responsable yi jël leen tej leen ci kasse wala nan la def mais affaire yi da nga ni wara top topp nit ki gis nga boko ko éviter bu bokkee ci ci benn wet bu bokkee exemple mu bokk Pastef yow sa yoon wurtute nek ci wa Pastef fital yet wo amna dal ci wa waa Pastef pour mu hmm. indi ci ay léral hmm. mais bul ko jappalé ci lenn maam bo waxé lu yanu maanaa sax bañal ah. jappalé ji kee nga xam moy président ah, ma Sall bu ko waxtaan mën fi il faut nga baye xel ni dam kat da jëlone ab tankam ànd ak caméra dem xoolu yoon lu bare bare est-ce que li mu gis moo tax mu war a jàpp ni lii kat mhm. jarul rek ñuy topp gars ndax bu ñëwee dañ ñu ko may ki leen ko may mooy Macky Sall te mhm. dem na est-ce que waruñu koo jëli foofu lay waxee est-ce que daam dana ko defaat li mu defoon noonu est xëy la def te loolu loolu kii la bu mu def te mennum xëy lañ dóoragul mhm. nañ xaar ba xam dina dóoraat beneen ndax foofu noonu man kilifa woo na ma ne ma baa asam est-ce gëstu nañ ndax président Macky Sall may na ko te yooyu gaynde yi mm. équipe nationale bi may nañ leen fa ak ñi ñu àndaloon ak yépp ba may mën ma yow ba doon ko ko kaas may nañ leen fofu te gaynde yi xam nga buñ leen mayé un mois bu leen nexé tambalé yëkëti mm-hmm. ak yenen ak yenen mais daam amna information warna xam lool bu amone information da naan kër gi kër Aladji Sane Diogu la mm. kër soñ bo ngi ni ci wét gi mm-hmm. kër nanga mi ngi ni kër nanga mais ay kër ngi ni xolal tabax bu gaaw bi xolal bi nim guddé ah non asan yombé wu non nga ko waxé demal nga sétan tel demal nga sétan non yoro sa caméra na xol tabax bi nim guddé non dam dam da doyé dé non waaw yow demal nga dem nga sétan direct and ak say site internet xamul taw wowu man xolo nan xolo xolo xolo xolo xolo bi ni guddé xolo bi air prise nangam la nim guddé waaw kep air prise nangam la xolal beulé xolal kër top lan man ñu dem fé talat auto bi di wër kep am ñu yor moto top ci di di di reporté nan ba benen nga nelé nañ jall ba ca bé taxawé ni <laughs> jallu suuf bi da nga mëna biñ ko fi sauté yagul xolo xéer yi xéer yi da warna sër wër ni yalla waxé ko xolo poto yi <laughs> poto yi mom xam nga ni poto yi ku neew doole <laughs> barke yàlla waxewu ko loolu asan lii da koo diabolisé wu billaay lii da koo diabolisé xoola jalu xeer yi jalu xeer ko doole la alaaji yow seetaan nga ko nii la ko wax billaay waxewu ko ah, ah, ah. eh, ay ku néew doole la daam dina wax ni non daal euh, euh, ay nit dañuy def def li ñuy ba pare nga ñëw jàngal ko fay na waaw ba lii fi ba ba fi doon ah, yow barke yàlla yow daanaka sax yow est-ce que du daam boo ñëw la doon tontu <laughs> ndax dégg naa am na ñoo xam ne ñu ngi wax. mais Assane lii dafa bi ni guddee xoolal jàllu xeer ah, ko topp mën nañ dem ba sa bële xoolal bële nañ dem bii sax moom waa daa bañ arrêté gudd. daa bañ waaw naa arrêté gudd waaye dañu war a ah nit ñooy liggéey seen liggéey ni ceele jàpp seen bopp rek <laughs> ndaam jëmam baax la de ndaanaan dëgg la ak bëgg réew mi mm. mm-hmm. awa jonn bu Sonko nee na merci Notre Dame nationale mm. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo nee leen plateau bi chaque jour chaque jour ko jëfee man damay ne alhamdulilah ba mu amee ku mel ni Pa Assane dégg lu mu wax <laughs> il est très intelligent et il est très intelligent et il est très cohérent Pa Assane nee na ko daa buñ ko tàllalee micro journaliste bi am woyadi bu toll ne dégg daa mbooj ko dañoo war a jëli Macky Sall toppi ko mu leeral mbir yi kon xanaa dañuy delloo ñoom Sonko àtte leen ndax ñoom dañuy fàttali loi d'amnistie loi d'amnistie bi yéen ngeen yaakaar ni Macky Macky daal Macky naka saka la Macky c'est un homme d'état intelligent Macky dofut wajul dof te masta dof te du masa dof mak yi nak waxna len ko fi Macky lepp lu mu def amna fu mu ko tek yeen da ngeen yaakaar loi d'amnesty bi mu def ci benn semaine kerti kerti xolul ku neex lu neex di xolul lu neex sénégalais mu tek ko ci table bi dal di koy appliquer yéen pour yeen nonu ci nenn la mak Sall mu na la mu na la xola mu na loo len ko xolal xam nga xeer loo ko baxal baxal baxal baxal doo ko njëriñoo Macky Sall na loo len ko dara yobo ngeen noppalu te jublu ci liggéey wuti leneen yéen nak wax dalen jot wax dalen yomb fu mu nek ni ndax dafa am lu ngeen bëgg pos amna na ñoo xam ne kenn déggatu leen moom ndax pos amna na mhm. kenn déggatu leen ndax am nañ pos mom nak neena bu nekkon journaliste bi question bobu la koy delloo ne ko kon buñu waré top makki ba kon xana dañuy le dossier Adji sar xam nga dañu newon aji sar man man man personnellement non la ko don xalaati ye jomay bu follow Sonko follow aji sar, amna problème ani aji sar du gis ngeen ay vidéo am ci TikTok bi muy fecc lu neex gis nga loi d'amnistie bi du caaxaan génn leen ci fo bi ngeen ne ku yaakar ni Macky Sall dañ ko war Sénégal fi diko ko atte muy yéeg ko wacc ci tribunaux yi sawal te teddi ngeen bal ma ci kàddu ki demal na law il faut arrêter il faut qu'on arrête ku yaakaar ne Macky Sall dina nekk fii di yéeg ak a wàcc yaa ngi nax sa bopp ci tribunal ñu koy atte di ko tëj <laughs> pour yéen loi d'amnistie bi caaxaan la <laughs> yéen a ngi nelaw nag merci Pa Assane merci d'être réaliste et véridique